de golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon Simbu Gaynde. waaw maa tay Simba maa maa maami Simbakat yi maa tay Simba Gaynde la na garaaw loolu am ay détail la nga yooyu yëpp mbiri góor la am jaar jaar nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si Baye Mandione buy wax erreur la buy dox erreur la lu mu def erreur loolu la mu ne sax man moom mën naa assuré loolu billaay ma tegee benn tànk andeer sama benn tànk bor bi ba def nii benn rek yaa ngi de li ma waroon suma diggante ak bi ak sponsor bi ma jox dara wo junniy xoyantaan faalewu ma leen dégg ma de teebeeram li leen man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah ayo yi suivre Lutte TV nuyuwaat di leen ziar comme ni woon dimanche bi passé combat jeex ñu toogoon fii man ak Babacar ak Zalba jàngat combat bi mu doxoon ci diggante Mama Lamine ak Jokkel tey nag beneen jeex na moo koy seqaat ak Babacar ak Mamadou Diouf borom E-Media waaw Babacar tey ma bàyyi la nga dalal Mamadou Diouf kon. <laughs> ziar naa la non mais Mamadou maa ngi lay delloo ziar mais Mamadou mooy sama doyen de Lamine ci micro yi. xaw ma xam nga loolu moom déet nag. <laughs> voilà parce que ci rajo Sénégal yaa ngi dégg. moo père Balla Gaye Ndour ñu koy nuyu di ko ziar xam nga Mamady Diouf ak père Max Mbargane Mamady Diouf bëri na ko ba tey moo ngañ jaañ kon yaakaar naa ne moom suñu doyen la ci liggéey moo Xaadim Samb suñu papa Xaadim Samb ci RTS 1 kon moom suñu doyen la quoi ñu jox ko kàddu gi. Mamady Diouf ñu ngi lay ziar. waaw mais maa ngi delloo ziar Lamine maa ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu liggéey bi vraiment am na solo trop gis nañu ni ngeen koy doxale naaj na di nuyu itam Babacar moom dafa ñàkk ñaan rek di wax mais xam nga euh, ñun ñëpp den lañu te ay xale lañu nekk ci affaire bi di liggéey d'abord ñu ngi nuyu euh, mbokki internet yi nga xamante ni ñooy bàyyi xel euh, Lutte TV vraiment muy. émission boo xamante ne bu am solo la vraiment di rafetlu liggéey bi di kontaan ci yéen bu baax a baax am mbégte ak kontaante toog ak yéen di faram-fàccee ci làmb ji incha allah. am na solo Babacar combat jeex na léegi léegi léegi ci diggante Brise de Mer numéro 2 ak Bulldozer combat bi noo ma la combat bi ban erreur la la la la waa ji Brise de Mer numéro 2. waaw Lamine li ma si jàngat mooy parce que ay mbër boo leen xoolee man bi ma leen xoolee si biir làmb ji gis naa ne ci côté relance Brise de Mer moo prolonge physiquement tamit dafa mel ni moo gën nekk ci làmb moo gën a pare ci côté mental tamit bi ma leen jàngate dafa mel ni moo gën a ëpp concentration moo gën a bëgg làmb ji yooyu yëpp nag soo ko boolee ak itam ay ñu xam làmb indi la nga teg bëre bi ci yoon da ngay am avantage. Brise de Mer nag bu ñu wax expérience moo ko waroon moo ko ëppale parce que moo am na fi takkusaan bu ne daan na fi ay mbër yu mag a mag fii ci Ibamar fii yaa ngi dégg am lu mu jot a def si làmb tey nag mu jaje xale boo xam ne xale bi day jóg ndax xale bi fi ma ko commencé bàyyi xel mooy tournoi bi leen jëy tëggaloon moom ak Mbagnick Kairé la woon euh, ak ki nga xam ne nii. Bac Seras ni voilà Bac Seras de numéro 2 ak Boy Bargny moom itam mu génn ca génn bu am solo moom bi moom bulldozer bi ñëw ñu jox ko alias Biram boo xam ne nii ku ne gis na technicité bi mu amee ak mën a bëri bi mu mën a bëri. mu am ak dynamique bi mu nekkoon. mu ñëw daan ko ñu jugal recours ñu kase verdict ba mais loolu da koy da koy may courage. Mm-hmm. da même buñ kase verdict bi da koy may courage parce que kii alliance Biram ak kii moom boo leen xoolee ci làmb amoon nañ différence loolu nag bu nee ci lancé sax boo leen ci côté palmarès mën nga ne moo ëpp moo gën Zal Bawol palmarès bu ko brise de mer amee moom day maanaam motivation mooy ëpp loolu feeñ na si bi bu lewaatoo nag bëre ñaa ngi dégg euh, leneen lu ma njëkk a seetlu mooy wéetaay bi ma gis ci brise de mer mbër du wéet ci yaram man bëgguma ko si mbër boog ci làmb te gis naa mu wét trop takkul dara quoi te man vraiment loolu apprécié wu ma ko ci mbër làmb moom mbër takkaay lañ ko xamee làmb dafa am lu mu baaxoo mais ci biir bëre bi nag boo xoolee xeex bi moom moo njëkk a tuuse moom brise de mer mais booy bi da ko répondre ñu jamante foofu booy bi di ko gëdd muy dem mais ñuy xeex mais ci biir laala mais foofu bëre la ñuy wër boo xoolee nag jóg bi mu jóg ñëw jël si booy bi moom moo baaxul. moo tax bi mu jógee boobu da koo gis dóor ko tànk suruxal ko. mu dugal bopp bi. am na solo waaw. am na solo yow tamit Mamadou Diouf noo jàngate combat bi. waaw euh, Lamine combat bi jàngat bi ma si def mooy daanaka Babacar wax na si loo xamante ni lu bari la erreur bi nga xamante ni Brice Lemaire numéro 2 def na ko booy bi moo ko suturanoos ba noppi moo ko xaw ëpp waa Euh, warul bëre comme lii mu bëre ak booy bi warul ñëw dëggal boppam digganteem ak ki nga xamante ne mooy Bulldozer parce que Bulldozer ni ko Babacar waxee rek dafa nekkoon ci ay dynamique de victoire euh, bien vrai que ne combat bu mujj euh, sans verdict la mujjee mais itam à loolu moom nekkoon na ci ay dynamique de victoire yoo xamante am na solo trop te mbër saa nekkee ci ay dynamique de victoire rek day indi confiance boo xamante ni day taali comprendre nga bu baax baax loolu day am loo xamante ne dafa koy def ci moom Brise de Mer li mu war na bëree yaakaar naa ne dafa war a ñëw wan euh, Buldozer ne ko dama laa ragal comprendre nga bu baax a baax di ko wër-wërloo wër-wërloo boo xamante ni euh, du sax ëpp quoi parce que itam xam nga moo ko gën a luur tuuti moo ko sut moo ko romba noppi moo ko lars te itam ne koo xamante ni moo la ëpp sut la rek booy bëri ak moom war nga ko jéem a déplacer jógloo ko parce que luur euh, bu jógee rek doonatul luur lese la parce que itam gaa Buldozer du luur mais luur la ci ki nga xamante ni mooy Brise de Mer que moo ko sut ba noppi te moo ko ëpp kon daf ko war na euh, déplacement latéral gauche droite gauche droite wala mu dawloo wër ko noonu tuuti ba may ki nga xamante xamante ne mooy euh, builder seen confiance bu ko mayee confiance bu ko dawee jël ko euh, mën na koo juum la foofu mais boo jékkee jékki rek bëgg a jàppanteeg nit ki coûte à coûte coûte à rek bëgg a xeex ak moom daw jël ko foofu bu la fi bu la bu la fi mboofee te mu ëpp la li nga xamante ne mooy relance yaakaar naa dootoo ci mën a génn parce que gis nga ko dafa daw ne coppet tànk bi c'est bi mu koy jëli boobu sax amul kii boo xamante ni am ah, taxaw na dëgg dëgg dëgg ba mën koo jëli ba mën a am ci moom dara. amul appi foofu la ko euh, kii nga xamante ne mooy Bulldozer euh, dóore tànk daw def rotation wër ak moom mu wër ak moom def rotation ci la ko dëppee daan ko jël boo xamante ni jël bu amul benn werante la. Euh, itam Babacar li mu ci wax xam na ma jaaxal trop parce que ci suñu biir reportage maa ngi koy wax maa ngi naan mbër day xajam parce que gis nga ki nga xamante ne mooy Bulldozer ni mu xajamee macha allah boo xoolee day saf sab ak ak mbër eh, boo xoolee ki nga xamante mooy euh, Brise de Mer numéro 2 ngembam euh, ñaari fas rek la ci tak ñaari xaaw li nga xamante mooy Brise de Mer ba de dafa ñëw bëri te effectivement noonu la ko defee dafa bëri te warul kut kaa kut mu ñëw ne day bëri ak ki nga xamante mooy euh, Bulle de Serre parce que moo ko ëpp ba noppi moo ko sut kon war nga ko wan ne dama la ragal war nga ko wan ne xam nga euh, euh, fii laa lay jaarloo bu ma bu fi amee mën am fi dara mën koo exploité parce que itam gis nañu combat bu ndaw boo xamante diggante euh, Papa Sambène ak bu ndaw yaakaar naa ne gis nga Papa Sambène moo ëpp bu ndaw moo ba noppi moo ko sut te gis nga ko bu ndaw fexe na ba lijjanti ko ba am victoire ci kaw ki nga xamante mooy Papa Sambène adversaire da ñëw wan ko ne dama laa ragal bu fekkee moo la ëpp comprendre nga bu baax a baax jéem a am ci moom dara a ak Balla Gaye numéro 2 loolu moo koy indil kii da lay ëpp ba noppi sut la loola lars la ngay ñëw ne da ngay dëggal sa bopp bu ko defee euh, adversaire bi fu mu la téye dootoo fa mën a jóg day am li mu bëgg ci yow euh, tout am na solo léegi Buldozer euh, fan la jëm. waaw Bulldozer euh, fi mu jëm ay moroomam ñoo ngi ci ay ji ah ay moroomam ñoo ngi ci làmb ji parce que euh, ku ci mel ni gis nañu benn booy di ko dëkk mais xam naa ne du ko bëgg muy BMW ki nga xamante ni moo bëri ak euh, Petit Baboy bien vrai que mooy premier grand combat mais itam man gis naa digganteem ak ki nga xamante ni mooy Sall Bawol combat la parce que itam ki nga xamante ni Brise de Mer 2 moo leen boole gis naa digganteem ak Sall Bawol combat boo xamante ni combat bu neex la. Cher comme li Mamadou Diouf wax rek xam naa ne euh, gis na kooku di ko dëkk BMW mais comme niñ koy waxee rek ñoom ñaar ñëpp ay xale la ñu ku ne sa premier grand combat yaakaar naa moom nga jongante wala boog bu même bu dul premier bi xam naa ne daal soriwu ko ñu ay xale yoo xam ne pour ñu bañante dina jafe moog Zal Bawol tamit boobu Mamadou Diouf tudd tamit yaakaar naa lamb boole na leen ndax dañu bokk adversaire bu ñu mujj daan muy Brise de Mer numéro 2 loolu foofu tamit lamb da leen di boole dégg naa tamit mënaan seen Matar Ndiaye wax na ci micro Leewtoo TV que ñoom dañuy daan laaj ki nga xam ne mooy Colifay werante wu métti mi yore mais foofu itam li may xamle mooy que rek pour que Brise de pour Bulldozer am Colifay ci Coli adversaire am loolu la wax. am na solo loolu leer na yaakaar naa ne Zal Baol moom ngeen wax adversaire boole na leen ndax ku ci nekk si ñoom ñaar yaa mujjee daan kii euh, Brise de Mer léegi nag dañuy continuer dem samedi bii ñëw Baba Diop moom tamit moo woote diggante Pape Ndoye ak Jackson ñu gëj a gis Pape Ndoye ban retour maanaam ban xar kanam la war a wane dimanche bi di samedi bii di ñëw incha allah. Pape xar kanam bu mu war a war a wane parce que Pape Ndoye boo xoolee mën nga ne ci côté lamb lutte avec pour nga indil ko ci jox ko ci critique xëy na dina xaw a jafe ndax li tax mooy diiraa ñu gis ko muy bëre lit avec frappe ba tey est-ce que daanu na ci a ah bu daanoo itam man jaaxar wala wala gàmmu gay waaw mais xam nga daan boobu ko gàmmu daan boo ko de boo ci nattee mbër dinga xam ne kii jàmbaar la parce que defe naa bis boobu ku ñëwoon Iba Mar Diop keroog la nga dagg bi pertoo ko moo gàmmu gay ndax li tax mooy ñoom ñaar kenn ku ci ne xam nga ne sa morom am na jom te am na wu fit xeex nañu xeex bu méttee méttee métti yaa ngi dégg ba kanam yi toj ku ne sonn ba la ca am. ki nga xam ne mooy gàmmu mujjee ko daan kon booba combat mën nañ ne combat jom kon nag mbër mu mel noon boo ko xoolee par rapport yeneen combat mi des nag moom prix dip lay doon kon da nga naan kon moom yaakaar naa ne mu ngi ci yoonu làmbam. xanaa kay mooy kani lañ koy wax mooy mu ngi nekk na mbër moo xam ne nii comme ci li nit ñi seetlu wala ni amateur yi wax utal ko adversaire jafe na am na adversaire dañuy xool nag ndax adversaire bii mu am ak ñi mu daan bëreel est-ce que benn lañu wala déet waaye kii muy bëreel nag siru ngi ci yaram bi. muy Jackson. siru siru mbër. waaw siru maanaam maanaam ah, bu bu ma la ko waxee. maanaam yëg-yëg la loolu loo xam ne luy ne ci yow di dox la maanaam am nga liñ naan jom du lu ñuy gis ci nit di ko jàpp mais ay jëf a koy wane. ak ay wax siru tamit ci doomu aadama maanaam mën nañ ko tuddee talent mën nañ ko tudde tamit loo xam mu ngi ci borom am talent daal mën nañ ko ko wax mën nañ ko tuddee jom mhm. mu ngi ci moom parce que gis nañ ko no bien sûr te dama ko gis kera dafa ma xaw a jux tuuti benn Modou booy boobu. te kaaralam te soppeeku ci géew non day soppeeku moo tax ma ne mbër ma ne la seru mbër xam nga mbër ci ci ci ci ci ci blouson yi am na ñoo xam ne doo doo leen ci xam mi bis bu ñu duggee ci géew bu ñu jaagar jaagar nga jàpp sa gémmiñ gis naa loolu ci Jackson. am na solo Jackson tamit comme ki laaj naa ko ban taxawaay la ban xar kanam la Pape Ndoye war a wane Jackson tamit ban xar kanam la wane war a wane digganteem ak Pape Ndoye. waaw Jackson euh, xar kanam bi mu war a wane digganteem ak Pape Ndoye xar kanam bi nga xamante ne wanoon na ko ay adversaire am yi nga xamante ne moom la mujjee bëreel. sang bu ko raw sang ak bu laal bu ko raw la ñëw war a wane ci digganteem ak ki nga xam ne mooy mooy Pape parce que itam Pape Ndoye xam na am xam am na lu mu xaw a ëppale tuuti ki nga xamante ne mooy euh, euh, ki nga xamante ne mooy sang ak ki nga xamante ne mooy beneen adversaire bi mu mujjee muy bu laal. am na lu Pape Ndoye wóoteeg ñoom parce que Pape Ndoye day adversaire boo xamante ni ñeme na ba noppi mën naa bëri te day bëri day xeex day bëri day xeex adversaire bu mel noonu boo ko amee yaakaar naa ne war nga war nga wane leneen loo xamante wane wane lu ko ëpp loo xamante wane nga ko ci diggante adversaire yi nga xamante moom nga mujjee parce que gis nañu Jackson euh, faralu ñu di gis ci moom xeex bu tar la faralu ñu gis ci moom muy muy jihaar ak mbër jihaar boo xamante ni jihaar bu metti la te Pape Ndoye day mbër moo xamante ku ko bëgg a daan faw di jihaar parce que day mbër na fit macha allah te mën naa bëre day xeex day moom Thiès nga xamante ni tam fa la ko fekkoon ci biir fiefam la ko fekkoon bëri ak moom bëri bu métti xeex ak moom xeex boo xamante ni xeex bu métti la ba gàññe ko ci kanamu ki nga xamante ne ay mbokkam la fiefu euh, Laay Goté la te Laay Goté gis nga combat yi nga xamante ne moom la mujjee fii am fi ay victoire yoo xamante ne victoire yu am solo parce que ku daan ku daan fii mbay guy gi daan fi ki nga xamante ne mooy tonnerre bu ndakaaru yow Pape Ndoye nga ñëw tiraase kooku kon kooku kuy bëreeg yow war na la war na am beneen taxawaay boo xamante ni war na ko mën a taxaw moom jàkk son parce que itam moom itam mbër la boo xamante ni du maye dara te loo ko may itam daf koy jël bien vrai que ne xeexam bariwul waaye lu mu jàpp itam moom moo ko moom dama xamul nag euh, euh, digganteem ak Pape Ndoye bu jàppee xaw ma lan la fay mën a am ndax dina mën a dékku xeexu Pape Ndoye ndax dina mën a dékku bëre Pape Ndoye kooku yaakaar naa ne ay fan ci yu néew ci kanam moo ci ay fan samedi ci heure yi dina leer bu soobee yàlla parce que ñaari mbër lañu yoo xamante ni ñoom ñaar dañoo xaw a tolloo xaw na tolloo ci wàllu poids xaw na ñoo tolloo ci wàllu taille xam naa ne bu ko Pape Ndoye di sut ba itam tuuti lay doon mais ñaari mbër lañu yoo xamante ni Lamine kooku boo boo déggee ne jàppante nañu ci digg géew bi bala ñu fa gën bu soobee yàlla sut dina am favori nag euh, may jox dama koy jox Pape Ndoye mais duma ko duma ko jox loo favori boo xamante ni légèrement laa koy jox légèrement laa koy jox parce que itam euh, euh, li tax ma di ko ko jox li tax ma di ko ko jox Pape Ndoye daje nag ay adversaires yoo xamante ni euh, adversaires yooyu ki nga xamante ni mooy Jackson dajewul ak moom looloo tax ba dama koy jox favori légèrement parce que itam daanaan loo xamante ni kuy bëreek moom rek war nga koo bàyyi xel bien vrai que nag gëj na bëri que itam mu nga gëj a bëri ci digganteem ak ki nga xamante ni mooy Laay Goote Jackson nag bëri na daaw ñaari combat gis nga ko am ti ñaari victoire kon kooku day dégager benn confiance boo xamante ni mu ngi ci moom confiance boobu bu ko dëggalee bu ñëwee euh, mën na am dara ci làmb ñaari mbir yooyu daal koo ci mooy daan rek kooku da nga koo faral Lamine. Babacar favori bi d'accord nga ak Mamadou Diouf wala. waaw mën naa d'accord si benn côté mais lu léger la ah parce tamit mbër mi nga xam ne euh, moom mooy Pape Ndoye boo xoolee adversaire am boo dugalee laay goote dugal ay bébé bismi xam nga dugal gàmmu géey adversaire yooyu yëpp ay adversaire de taille lañu mu bëre ak ñoom daan leen mais itam li xale bee li tax tey muy outsider bu wóor bu jar a bàyyi xel mooy ñaari combat yi mu mujj bëree daaw ay combat de qualité la ndax la mu def bu laal bu laal kër am na lu ko bett. sang le tigres am tuuse ko mu kaw mu bëreeg moom ah, sang am na lu ko bett mm-hmm. kon nag mbër bu mel noonu même bu nekkulee favori. dafa jar a bàyyi xel. yaa ngi dégg euh, làmb nag favori chaque jour outsider gagné ko. yaa ngi dégg parce que loolu ay papier la rek. ci ay palmarès sax ay nangam sangam lañ koy xoole mais du réalité géew géew bi moom benn affaire a fa ne. leneen li fa nekk mooy xam-xam ba ngay indi fit ba ngay indi ak dal ba ngay indi ak concentration ba ngay indi yooyu defe naa ne mooy faral di def différence ci géew. loolu moom ku la ko ëppale si biir géew des fois mu lay ëppale avantage. beneen combat ba bu ñu bëree samedi ba dimanche ba bàyyi ñooy ñëw. waaw bàyyi ma ñoon xoyantaan di làmb ju mag parce que loolu sa Gambia la ñu ciy nuyuwaat. ni ma la ko laajee ni ma la ko laajee ci ci ma ñoon moom tamit ban xar kanam ban xar kanam la war a wane fële ca Gambie. parce que bàyyi ma ñoon xar kanam bi mu war a wane parce que dafa am benn question bu ma ko laajoon baisse de forme bi ak défaite yi ca Gambie laa ko ko laajee mu wax ma wax boo nga xam ne wax bu daw yaram la parce que nee na ma wuy juróom bu góor yàlla na mu nekk ci di ci sonn te mënu woon ko boole xëy na ak entraîné te itam xëy na bëggu na di jël ay combat xëy na parce que borom kër la jàppal bàyyil mais nag yàlla xëy na miy dogal ñëw na dogal way juróom génn àddina yàlla na ko yàlla mu xare ko aljana parce que loolu du woon sunu suye li doon suye bi mooy góor gi nekk fi ba tey xëy na nag tey comme ni mu ko ni niñ ko mën a jàppee mooy préparation war na mën a gën a baax parce que xar kanam bi moom benn la war a man a doon mooy indi loo xam ne nii tey ñëpp dinañ ca mu nekkoon parce que lenn ci làmb boo ko amee defe naa ne cim euh, làmb nga bokk mbër saf xorom mën a fecc ñeme mën a bëre te mën a xeex te yëpp baay ma ñoon mucc ci. Mm-hmm. kon nag li ko dese ci li ma gis mu mujj koo am ci ay défaite déconcentré wu daan na ko daan maanaam manque de concentration. Mm-hmm. bu fekkente ne nag combat bii moom il faut mu di concentration bu doy il faut mu joxe tamit cër bu doy et tamit moytu waxi signature. li ñuy waxee nii ci ay signature kenn du ko yóbbu ci géew géew concentration la ma la waxoon sànq moo fay dem xam li ngay def ak ak ban heure war a jóg. parce que dama digg Mouhamed Ndao Tyson ma koy nuyu di ko ziar dafa am wax bu mu waxoon ci combat ak Tafa Gueye bi ñu bëree 2004 te yàlla def mu gagné ko par décision médicale. bi bi muy def conférence de presse ñu laaj ko Tafa bi mu génn géew bi waru ko na daw nangam sangam Tyson ne leen bëre intelligence en mouvement la ku la gën a yow mu la dàq bëri. maanaam mbër boo nekkee ci circonstance bu baaxatul fexe cee génn parce que bëre naxante la. xeexu mbedd moom foo dóor baax na xeer sa boo ko dóoree baax na mm. mais làmb nag demeewul noonu ab naxante la mm. adversaire bi dafa liggéey nga liggéey da ngay jéem a naxanteeg moom ba yóbbu ko ci zone bu ko neexul man ko daan dem kon bàyyi ñoon defe naa loolu la war a yóbbu Gàmbi dimanche. adversaire miin nga waaw jot naa ko xam fi parce que jotoon naa ko gis ci ay écrit muy entraîné fii Sénégal muy Fass Guédiawaye ak yooyu jot naa ko fa gis muy entraîné xale la boo xam ne tamit am na lu mu bëgg ci làmb parce que tey na mu nekk roi des arènes Gambie noonu la bëggee tey imposé wu fii au niveau du Sénégal waaw parce que li ko koy may nag tey dafa am occasion bi muy mbër mu mag la am ku bëreeg Modou Lo am ku bëreeg Gris Bordeaux ku bëreeg Boy Niang bëreeg Papa Sow bëreeg mbër yu mag yi ne Sénégal kooku lay bëreel tey kooku nag bu dee da caa am ndam dana ko maanaam dana ñi nekk fii nañ ko gën a gëstu waaye nag est-ce que dina ca am ndam loolu moom question bi dañuy yónnee yàgg maar ma la taxaw ba dimanche ak jàmm ci kàttanu yàlla bu ñu demee Sadou Bakaaw ba incha eh, allah. waaw bàyyi ma ñoon xoyantaan combat boo xamante ne combat bu am solo la yaakaar naa Babacar développé na ci lu bëree bëree bëri parce que ma ñoon na mu doon bëree di ko bëlee 2004 bokkul ak ni bàyyi ma ñoon di bëree léegi xëy na itam aduna moom day dem te itam aduna day sensé comprendre nga bu baax a baax tey da ngay taxaw suba nga ñëw taxaw nale hmm. parce que itam Baye Mandione doyen la ci làmb léegi ah doonatul ay caaxaan ci làmb doonatul même portugais ci làmb kon war na xoolaat bu baax baax parce que moom ni muy taxawee parce que ku bëre 28 combats Lamine loolu du ay caaxaan 28 combats ku ko bëri du ay caaxaan bëriwul ñoo xamante ni def nañu ko ci làmb kon yaakaar naa ne comme ni ko Babacar waxee rek war na xam fi ko làmb ji di yóbbu ak war na xam fi ko làmb ji di yemale. Euh, war liggéey loo xamante ni euh, ci sérieusement liggéey loo xamante ni euh, liggéey ci wàllu xeex liggéey ci wàllu bëre liggéey ci rapidité vélocité lépp mu liggéey ci parce que itam adversaire am bu mu ko xeeb. parce que adversaire la boo xamante ne adversaire bu dansé la parce que gis nañu fi mu jaar digganteem ak Gambie yaakaar naa ne digganteem ak Gambie moom xoyantaan baat la ak tontu te itam Gambie kenn ku ne xam na der la kon kooku kuy bëri ak moom rek Lamine war nga koo bàyyi xel confiance bu ëpp bi nga xamante ne bàyyi mu njoon da koy dégager itam war ko wàññi bu baax a baax xaw ko xaw koo teg ci suuf parce que itam am na yoo xamante ni euh, boo ko bëggee wan sa adversaire te itam yow duwaaye nga ci lam saa booy daanu rek da ngay gën di wàcc te bay ma njoon yaa ngi ko gis ci ay défaite la nekk ay défaite xam nga gëj na am victoire yàgg comprendre nga bu baax ba kon war na concentré wu ci combat bi pour jéem ci am victoire xoyantaan itam moom itam du ko ci bàyyi parce que itam dafa am lu mu bëgg moom itam te dina may roi des arènes Gambie te du nangoo bàyyi bàyyi mu ñoon mu di ko daan combat la boo xamante ne koo ci ne mooy daan wala koo ci ne moo kii rek favori moom bàyyi mu ñoon la Baye moom mooy favori yu Bawol 2 Zal Bambey. booy Bawol 2 Zal Bambey combat a moom itam le 15 décembre muy làmb xam ne tamit vraiment làmb ju neex la fii lay kàttanu Yàlla dimanche lay doon su dellu see ah li leer ba leer nag mooy Zal Bambey moom la ñu xam ci làmb comme Boy Baol numéro 2 waaye Saal Bambey maa ngi wax ne ko am na adversaire bu bu am na adversaire bu dangereux parce que ki mu am du mbëru far kese de. ah man day gis naa bu yàggul mu bëree gaal gi moog général Malika mi bëree bu méttee méttee te defe naa yaa foon. te defe naa ne it nag xaw ma mboot kese la man xaw ma benn kale la man ñoom bëri dinañ xamante waaye ñun itam suñuy bët la ñu yor dañ leen gisee yow tamit. combat bu neex combat bu neex boo xamante ni combat bu di ci gis bëre xeex bi du ci bari parce que ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañu euh, comme ni ko Babacar waxee rek sa album bi bu mu ko santerwul rek ñi te ay ay Boy Baol numéro ñaari kele la am parce que mënoo ci mbapat ak moom mën na itam am loo xamante xam euh, xëy na itam waxu mbër la dafa bëgg dafa bëgg dafa ko bëgg a déstabiliser adversaire am bu ko defee mu mën koo jaar jaar feneen parce que Saal Bamba itam xale la boo xamante ni xale bu mën a bëri la parce que itam bari na loo xamante ni lay daf lay jàpp day faq di bët ba noppi day def demi flexo di jaar di gén di yoo xamante ni yu sew la yor kon kooku bu dajee ak ki nga xamante mooy booy bawol numéro ba noppi ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk ci ay victoire ah Saal Bamba ci victoire la nekk booy bawol numéro ci victoire la nekk ba noppi ñoom jox sa morom wala nga jox sa morom respect boo xamante ne respect bu ëpp la bala ngay comprendre ñu daan la ñibbi boo yeggee sa kër ngay door a comprendre daan. favori non combat boobu man du ma ci joxe favori ah. dama joxe cinquante maa la gën a kontaan Lamine. Babacar kan mooy moom laa jox favori parce que lii fi ma ko teg mooy si côté yàgg bi mu ko jiitu expérience bi mu ko jiitoo ci làmb ak yu mel ni ki noonu soo ko dajalee mën nga ko ko jox par favori mais nag favori bu léger la kontaan naa ci xam ne golo golo du golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon simb gaynde. waaye maa tay simba maa maa maami gaynde la na garaaw loolu am ay détails la nga yooyu yëpp mbiri góor la yaa ngi góor foog nga jaar jaar man simb naa ba tay fu ne Paa Ami Ndione mi nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si buy wax erreur la buy dox erreur la lu mu def erreur sama loolu la wax mu ne man sama lépp erreur la léppam erreur mais bu soobee yàlla bor bu jógee suma diggante moom lépp lu luñ ko ngi dégg lijjantiwuma junni xoyantaan faalewuma leen danga ma de téeméeram lijjantiwuma leen man xam nga lan laa xelaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah